أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشأ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu sell di jiital ci nuyu boobu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ba limonaal ci njaboot gi ak xeet wi ak askan wi ak taalibi Serigne Touba yàlla defal ko ni ma ko bëggee ñu delluwaat di nuyu réew mépp ak diine jëpp di santaat bu baax tey ñu ñëwaat fii ci siri bi di 24 actu basi ne labiré suñ mbokki taalibe yi ci ay tomb yoo xam ni Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul moo ñu ko daal labiré waaye tey nag jotaay bi waxtaan wi lépp dañ koo darajale Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Xaadimal Mustafaa ku ne xam na ni booy waxtaan ci Serigne Touba ñoo la ngay waxtaan ci mag ñi doomi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yi koo ci jël rek mën naa yeggale lépp man naa matale lépp na nag Cheikh Abdoul Ahad Xaadimal Mustafaa la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waxoon dénkaaneem yooyu mu ne woon juróom yi buñ xam sa juróom yi say waajur buñ xam sa naqari deret sa njaboot buñ xam sa nay waxtu julli yi buñ xam sa yitte sa barabu liggéeykaay buñ xam sa taayal say bu buñ xam sa ñàkki teggin sëriñ bi ni yooyu day fas la woo xam ne ku ko war soo ko wàccut bis doo sëgg bukk da ngay ndax jàngaleem sëriñ Touba dafa doon loo xam ni képp kuy ab jullit euh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi sëriñ bi yaa ngi ci biir ndax sëriñ bi ni ko waxee rek irham la wax jamia la war a yaxadira dafa dafa dafa dafa jéggalul ñëpp mbindeef yëpp rawatina jullit yi suñ boroom jéggal leen ci lépp loo xamante ni defe nañ ko ta matewul kon bu dee waxtaanee ci tombi Serigne Touba yi jagleel ko Cheikh Abdou Lahad Khadimou Moustapha ñu mal bisam kon euh, dina baax ñu gën ko laybiré mbokki bi yépp ndax la njëkk ci waxtaan ci Cheikh Abdou Lahad bis ba mu ganee jamono la Serigne Touba ku mën turam wi rek suñ boroom jéggal la ca sawara kon loolu ak tanif la magam ju baax ji cheikh Modou Moustapha moom cheikh Abdoulahat mas na koo ganasi ca Tindodi eh, nee nan boobee bi cheikh Abdoulahat ñëwee ci ngan gi dafa woo murid yëpp wax leen ni leen fexe leen ba cheikh Modou Moustapha wax ma ni ma murid saadix nga keroog bi ko ko Cheikh Modou Moussa waxee nee na ngan nga daanaka falayam ndax soppeeku gu sëriñ bi soppeekoon ndax ak murid dëgg dëgg dëgg man de gëm naa ne mu ngi tàmbalee ci Cheikh Abdou Lahad yem ci Cheikh Abdou Lahad xëy na booy waxtaanee sëriñ bi koo indi ci njabootu sëriñ Tuubaa gi kenn rek mën naa laa fale ñëpp waaye nag ku nekk ak saw sas Cheikh Abdou Lahad Xaadil Moussa am na bis mu jëm Gabon. ci ginnaaw sëriñ bi mu jëm nga moo ci tukkeem yooyu di dem fi sëriñ bi daa dem di ci barkeloo mag mi ma nettali nee na ma duggee ci bato bi bi oto gaal bato bi tàmbalee daw bi ñu ba ci biir géej gi si ñëpp laat dafa jékki-jékki rek yuuxu ab jël dikkal ko nee mag ñi kër këral kër kër ba ba ba mu dee ba ni tekk daan ne xam ngeen lu ko war la mbakki ñu ni tekk si ñëpp laat ni fa ma ko defee. fa la ko sëriñ fa la sëriñ Tuubaa doon jullee ñaar rakkam yooyu kon manees naa wax ni loolu lépp ak tànneef la ndax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul eh, liggéeyamam lépp yonent bi sallallaahu alayhi wa la te Cheikh Abdou Lahad ku ne xam na ni li sëriñ bi daa bind ci kalaam xarab di ko laybiri jullit yi moom Cheikh Abdou Lahad doo ñëw firi ko ci wolof ndax ku ne xam na ne ak njàngam mook cheikh saalihu mbakke ak cheikh Souhaïbou mbokk gi ni mu demee ku ne xam na ko ak mbokk gi jàng waaye ba ko sëriñ bi wooyee ba mu ñëw mu laaj ko foo toll nee na mooy tari mu xaw a gàgg mook sëñ Abdoulaye Abdoulaye Jaxate gis nga ca bis boobu ci la sëriñ bi wax Cheikh Abdoulaye mu ŋaa muy ñaan di tifli mu ñaan di tifli neen bis boobu la tàmbalee moom Cheikh Abdoulaye lu mu tari rek yeggale kon nit ñëpp war nañoo gën a royaat ci Cheikh Abdoul Ahad bu baax roy gi nag xëy naa dina jafe waaye nag la Cheikh Abdoul Ahad bëggoon ak fa mu tegoon tànkam ñu jëm koo xentu ndax Cheikh Abdoul jàngale na ba jàngale lépp maa ngi dégg ci wenn waxtaanam muy waxtaan ci njiitu réew yi di leen daan jiitum réew mu am ndigal day ngir mën laa labiré de di la labiré moom Cheikh Abdoul dafa waxoon ne njiitum réew mu ne dellu wuti di indi loo am bokk koog waa réew mi lu waa réew mi am nga bàyyi leen ko kon loolu tegtal la boo xam ni képp kuy njiitum réew mën nga cee soflo ba li nga yéene sam réew nga mën ko def ndax ak taalibe bi rek ci la daa dox li sëriñ bi bëggoon rek Sëñ Tuubaa mas naa wax ni yi ñett mi ngeeg joxe naa ko muy dénkaane ak maye ak jaay moom sëriñ bi ñett tomb yooyu da cee waxoon ni dénkaane dénk ku ma wóolu Ceerno Ibrahima Faati laa wóolu dénk naa ko la ma doon dénkaane may ku ma neex maam Cheikh Anta Mbakke moo ma neex may naa ko la ma doon may waaye nag ku am njëg Ibrahima Fall am njëg jënd la ma doon jaay mooy ak taalibe rek mooy ak nangu ndax Sëñ Abdu boo gisee nekk gi mu fi nekk jamono lépp daraa toppe diggéem ak ay magam diggam ak ay rakkam Cheikh Abdoulaye doxee ni lam ci njabootu ko Serigne Touba ci ñi ko ci mag ak ñim ci mag su masaana toog daanaka doo ko xamee ndax ñëpp ku ci nekk Serigne Touba lan daa xoole sama doomi sëriñ rek nga daa dégg moom Cheikh Abdoulaye ma ko daa wax. li ma wax fan yee ci benn jotaay ma ne boo toogee ci mbooloo di waxtaan bëgg ñu dégg la bu nee Serigne nee na faw murid yi faaw jullit yëpp dégluwaat la ndax pas-pasam ak tànneef gum tànneefoon ci. ci àdduna ci dundam ci loo xamante ni du wax mukk lu jëriñu doomaadama kon réew mi war na noo gën a santaat bu baax bi na amee ci àdduna ci suuf suñ mag yu baax yu tedd yooyu ndax Cheikh Saalihu Mbakke Xaadimal Mustafaa noonu mu def daaraam yépp ku ci nekk mu tudde ko ci daaru yi nga xam ne ci njabootuk Serigne Touba yi wala sëriñ bi fu mu sanc da ci Belal daara jooju fa laa ne woon jëm dubbee Touba Belal gu Cheikh Abdoulaat moom lan daa wax daaru Turaa daaru Harimul Xabir daaru Muxti daaru Tansil daaru Xudóos Touba Xelkom daaru Salaam ak fépp foo xamante nii rek tànnee fi sëriñ bi la wala doomi sëriñ bi tànn ko barab boobu Cheikh Salihu Mbakke ci xel koom gi nga xam ni da ko e, sasoon ngir taaliba yëpp barkelu ci waxam juré yooyu mu ca waxoon ni sallahu su ma xamoon ni ñëpp seen tànk tegu na ci suufus xelkom bàyyi ko woote ndax tooli Serigne Touba yi la tooli Serigne Touba la damaa bëgg ñëpp jariñu ci rek moo tax ma koy woote seen doxalin ñoom ñëpp ndax bi fi Serigne Modou Moustapha jógee cheikh Mahamadul Fadal nekk fi taxaw fi taxawaay fu rafet ci yoon wi àndoon kook cheikh Abdou Lahad ak rakkam yëpp ku ne xam na bi fi Serigne Fallou jógee cheikh Abdou Lahad toog fi ku ne xam na Serigne Abdou Lahad nu mu doxee ak réew mi ndax président yi mu fi fekk yëpp dala ci Senghor ba ci Abdou Diouf ñi mu fi fekkanteel ñëpp ku ci nekk la ma waxoon léegi rek ci sama ginnaaw mooy. lim na daal lim daal laabir boppam ak lim daal laabiré mbokki jullit yi mbokki taalibe rek la leen daal laabiré ndax man mii sama waajur sëriñ Sam du la ku ne xam na num mu demee woon ak Cheikh laat ci jaay ak njuréelam jënde ko ab taalibe ànd ak moom ci pas-pasam ndax daanaa dégg ñu ne Cheikh Abdou Lahad mel na mag ma wax ne Cheikh Abdou Lahad wax ne su juumee mbooloo juum ndax day diisoo mag mi ni ma Sëriñ laat Lahad day ñii daana waxtaan ak ñoom ñu lu bari muy sëriñ Moustapha bu sëriñ Bachirou sëriñ Hamsatu moom boroom daaru sëriñ Abdoulah Karam mu sëriñ Afe ak sëriñ Sam Mbakke Ndula sunu waajur sunu jëwriñ benn bis moom sëriñ Abdoulaat mas naa jóge fii ci Touba booba armée yi nga xam ne moom lañ tëj tey sëriñ bi da ko bëggoon a tëj moom sëriñ Abdoulaat dégg naa bi mu ñëwee ba jubndu la jaar fa ci sëriñ Sam sëñ saam laajoon ko Mbakke yoon wi mu ne ko day damaa bëggoon a dem ca rajo ba ndax ci armeel yi nii damaa bëggoon ñu tëj ko ndax daa fees sëñ saam ca taalibe ga ni ko Mbakke day kon damaa bëgg nga may ma ma jógu waaj defaru làqu léegi ñu denc bi léegi ba koo tëj sëñ Abdu Lahat fa saasa ni ko kon kon sëñ pas-pas la àndoon ak nit ñi daana jëriñ ñépp nag ci jëmmam rawatina ci teddam rawatina ci fonk lislaamam képp kum masaane dégg moom Cheikh Abdou Lahad ngay dox ci lislaam maa ngi seetaan léegi rek ay nataal yoo xam ni sëriñ Ablaye caw xalifa laay nii moo fi ñëwoon yàlla suñ borom yàggal ko fi ak ay magam ñoom ñëpp waaye gis naa ci nataal yi nu Cheikh Abdou Lahad ndax xam na ni ñooñ lislaam ñoo ko seet si te ñoom ñëpp benn lan daawun wut par parlo murit wala tijaan wala xaajar wala laayin ñëpp danoo nekkoon benn kon nag suñ mag yu baax yooyu nekk gin fi nekkoon daañu labiré te yàlla rek a tax war na noo mën a jël ñu nit sunu tànk teg ko fa teg ko foofu bañ a dund rek ab murit la wala ab tijaan la wala nangam ñun ñëpp danoo war a bokk pas-pas di yëkkandeedoo di tegandoo mag yu baax yi lu baax rek leen ñoroon te danoo war a xam ni seen liggéey bépp dañ ko jagleel jullit yi ndax seen dund dafa amoon solo lool mënoon nañoo seen dund gépp mu ñu yemale ko ci seenu bopp wala seen njaboot waaye dañ ko yemale ci lislaam bi yemal ko ci jullit yeeg murid yeeg ñëpp kon nag loolu war nañ cee jaajuwaat bu baax a baax bépp bis buy ñëw di suñ bisub mag yu baax yi bis bi ñu dëdmal muy bisub Cheikh Abdoul Ahad ku ne xam Cheikh Abdoul Ahad njàmbaaram kon ñàkkuñu ay royukaay yu ñu roy dañ ko am bu baax a baax a baax kon nag ku nekk war nga cee jël exemple ñu ci roy bu baax xam fi ni teg sunu tànk li jiitu lépp teg sunu tànk nag xam ko mooy fonk suñu kilifa ni ma ko waxee ci jamono yee am kilifa moom dafa doon loo xamante ni ku ne xam na ni mu ni mu ni mu amee solo rawatina nag kilifa gu mat kilifa muy sëriñ Serigne sëriñ mun Mountakha wax ju am solo ak waxi tedd yi nga xam ni wax na ko ci jëmmi jamono yee kon loolu ñu gën a xam ni boo amee kilifa goo xam ni day génn soo defee lu dul yoon mu génn ko wax la ko loolu ñun nan ko jàpp ak suñu fukki loxo ndax keroog wax ji li ma ci gën a daal leen joxe ñun ay taalibe lañ am ne salaamaaleykum lam njëkk a wax mooy mbokki taalibe yi. baamu na ko ba muy ñeent yoon kon nag kooku wàcc na boppam ba tolloog ñun ngir mën ñoo leebire te loolu lépp Sëriñ Tuubaa maam ju baax ja ca la newoon ca la nelu woon ba tey jii lu mu metti metti ak lu jamono tar-tar ñoom ci yooyu du mën a teggi seen tànk fa Sëriñ Tuubaa bëggoon ndax Sëriñ Tuubaa lam daa wax rek nag naan àjjana joo xam ni lu la neex nga wax lu la neex nga def man Serigne Touba aw ma jooju àjjina ku ko dégg fenn ba yeboo nga dem fa yéene naa la ko kon jëf liñ bëgg am liñ bëgg mënta ne ndax sëriñ Touba li doon digal jullit yi di ko digal taalibe yi ku ci topp sa intérêt da cee ne ndax sëriñ bi damay wax ni daraam génnut yàlla daraam génnut yonent bi waxut waxi ba woote woon ngir jëm ci boppam kon loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax gën a góorluwaat bu baax ci sun mag yu baax yi ñu am rawate na Cheikh Abdou Lahad Mbacké Xaadil Mustafa kenn mënu koo fay euh, manas na di ñaan waaye nag xëy na lu ñaan rek dañ ko war a xeeb ndax def soli nañu fi ay critères yoo xamante ni ku ci topp ku ne rek sa àdduna mën naa baax fan jëmit mën naa baax waxam ju tedd jooju mu daa wax naan képp ku masana ñëw fii man moom moom Sëñ Blaat doo ma wax mbiri fële mukk mbiri fii rek la nga may wax mbiri adduna si rek la ma murit la ma taalibe yi di wax ma ñaanal leen ci kon xel dal gan dan xel te fële nii dina am dina baax Sëñ Blaat nee na noonu lay ame la sëñ Modou Moustapha waxoon ni euh, taalibe sëñ Tuubaa yi jiitu day xam naa ne sëñ baa ngi leen di teral ndax nangu gi nangoon ay ndigalam di bàyyi ay teram sëriñ Fallu daana ko wax daana wax ni taalibe sëñ Tuubaa yi day ëllëg yowmal xiyaam sëñ Tuubaa day leen di fay ba ndus ndax taxawaay yu ñu taxawee ci ndigalal sëriñ bi ndax sëriñ bu matub sëriñ ñu yónni ko muy digle la muy digle bu amee ñu koy def loolu kon mission bi ñu ko euh, partagé loo kon day mën a xam ni mat na kon ñu ngi santaat bu baax di jéggaluwaat bu baax a baax xam ne am na ni yéene waaye nag xëy kàdd gi matewut di gën a soññ sama bopp di soññuwaat ñëpp ñu gën a maase dooni taalibe xam ne ak taalibe mooy liy jariñ nit ak taalibe mooy liy jariñ nit fii ak fële ndax mag ñu baax ñii nga xam ne moom lañu suñu boroom jox ci àdduna koo ci jël di waxtaan ci moom rek daanaka man ngaa tàmbale ci taalibe yem ci taalibe ndax génnuñu ci génnuñu woon ci ndax Sëriñ Tuubaa moom ak taalibe rek la woote nee na lépp a man waaye njëg gi nga mën a am ngir jënd ko mooy ak taalibe loolu firnde ne ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci njëg googu nga xam ne sëriñ bi lam waxoon ni la doon jaay jënd na ko ndax ak taalibe képp ku koy roy ci Baye Cheikh Ibra nga koy roy ndax nangu gi la Serigne Saliou daa wax ni Cheikh Moudoumbe Xaban muy sëñ Dame da ko da koy roy ci man a bay gi te lu mu bay jox sëriñ bi waaye Baye Cheikh Ibra nangu gi muy taalibe gi kon nag sunu mag yu baax yi jàngaleel ñu lépp ñu gën a góor góorgóorluwaat rek saxaat ci taalibe rek ni eh, ñaanal Serigne sëriñ Serigne taxaa mu gën fi yàgg gën a wér ndax bu fi yàggee sunub sag la su fi yàggee sunu njariñ la. di ñaanal Cheikh Abdoul Karim mu Serigne Fallou mooy mu yàgg fi loolu te wér sunu Serigne sunu lépp ak Serigne Fallou Mbacké xalifa Serigne Samdou la di siyaare ñëpp di baloo ñëpp xaq di bal ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu